ñu ngi noonu teg nañ pono yi sotti essence taal nañ ko seen nga tàkk-tàkk bi noonu seen nga dégg nga seen nga noonu nee nañ tey duñu bàyyi feek jotuñu seen xaalis seen nga ñu ngi noonu taxaw seen nga noonu ba tey ñu ngi noonu ñu ngi noonu ñu ngi seen tamit euh, takk der am na kenn ku taxaw ne mais dégg nga ñoom nee bu benn policier laal seeni bagage tey mu doon loo xamante ne lii lu mat bàyyi xel la ci biir réew mi mu doon loo xam lu mat a bàyyi xel la ci biir réew mi muy seen nga noonu seen nga seen nga noonu seen nga noonu seen nga noonu seen nga jàppante bi takk der bi ñëw na gars yi nee nañ ko doo jege fii arrièreal <clears throat> seen nga noonu seen nga noonu ñoo leen gën a gëm dee ñun dee la ñu gëm ñoom damuñu dee ñun dee la ñu gëm ñun ak ñoom xamante nañu bu baax a baax boo gisee ñuy maslaa parce que dëgg bi suñu dëgg la est-ce comprendre mais ay ragal de lu ñoo mu mel ni yëf yaa ngi bëgg a ëppi loxo yëf yaa ngi bëgg ëppi loxo ndax ñoom nee ñoom ñoo demoon guerre pour seen dëkk doonu nangu tey policiers yi tamit euh, di bëgg leen xañ seen droit lii seen droit la dañ koy ñaxtu seen nga noonu ba tey ñu ngi noonu ci kaw tali bi ci fi nga xam ne Euh, intersection bi xam na mooy euh, zawiya El Hadj Malick fa la nekk seen nga commandant noonu mu ngi joxe ay euh, ay construction pour éléments yi ñëw mais militaire les militaires invalides ñoom nee nañ ko doo ko laal pono seen nga noonu seen nga noonu seen nga noonu seen nga seen nga noonu seen nga ñoom daw nañ song oto bi seen nga jàppante bi seen nga jàppante bi foofu. seen nga loolu lii mu doon loo xamante ne war nañ ko war nañ cee bàyyi xel. lii war nañ koo bàyyi xel xoolal loolu xoolal kooku daan na ci safara dugaat. seen nga commandant bi batay mu ngi non ak euh, président le nouveau président des militaires invalides sen nga ko non mu ngi non ak le président le nouveau président des militaires invalides dégg nga noonu ñu koy waxee ñoom nan leen fay wala seen bakkan loolu mooy li nga xamante ne tey loolu wax seen nga noonu gars yi ñu ngi noonu ak seen nga ñoo policier yi seen nga yëf yi nag xaw naa doy waar fi mu toll nii seen nga ñu ngi noonu commandant bi ba tey ak les militaires invalides seen nga noonu. tabaski ko dañuy yori njaboot tey noonu lay demee suñu xaalis lañ koy dañuy tabaski suñu xaalis te problème mu pisu carte yi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ndax dañu bëgg a moo tax moo tax ñu dugal ay pis officier armée yi duñ ko nangu. waaw dégg nga noonu dégg nga noonu ba tey. ñu waaw mu ngi noonu am na ci ñenn ñoo xam tamit ñu ngi waxtaan ak ñoom di jéem a calmer ci takk der yi ñu ngi waxtaan seen biir di jé diggante policiers yi ak les militaires invalides bëgg lii la ñu bëgg Mamadi bi ñëw lii la ñu bëgg moom ana ñun xoolal suñu muuni on a servi notre pays mais notre man man maa lay woo man maa lay woo mën naa lay woo mais sunu moonin. waaw d'accord sunu moonin. Ah, mais mais mais ma sunu moonin. waaw bëri bëri. sunu moonin sunu moonin. Macky Sall dafa ñu yàpp ñun ñu fay suñu xaalis ñun ñun dañu liggéey suñu réew ba am ñu am tey kon nañ ñu jox ñun tey lu ñu defal rek dañ ko mérité ñun waru rus nañu sax ñu war a wàcc si tali bi nii ah ban état lañu rek nekk Macky Sall defaluñu dara dara la ñu defarul. yow John kii kii ku nekk mu ko jóg yow tuur yow suñu waay nga woon mais indi nga ko suñu waay nga woon mais indi nga lépp suñu waay nga mais indi nga lépp yow voilà vous pensez que ça suffit waaw mais mais xam nga ko la foo commandant fu ñu jógee foofu ngay ñëw regarde regarde regarde voilà suñu wax voilà dafa am ñu wàcc si liste bi fay leen te duñ a fay suñu xaalis nga noonu kàddu yooyu ci nee ko roccil grenade mu ne ko roccil grenade tey dee la kon ñoom nee nañ fi mu seen xaalis wala seen bakkan instant bi ñoom loolu lañ wax ñu tey ñu ngi gis ci borom euh, grade yu kawe yi am na benn benn fi tàmbalee ñëw ngir c'est la famille vous êtes des d'armes. je sais c'est la toujours on a écouté le sous-préfet et le colonel gouverneur si nous appelle yow wuy si ma non non non Si, il se permet, on est là, on domine pas seen nga noonu seen nga noonu yëf yi ah, jàppante bi mu ngi am waaye tamit am na ñeneen ñoo xam ñu ngi jéem a calmer ndax yëf yaa ngi bëgg a ëppi loxo yëf yaa ngi bëgg a ëppi loxo fii ci digg Ndakaaru Njaay ah, seen nga ci diggante eh, les militaires invalides ak takk der yi seen nga pono yi noonu ñu tal zawiye Alaaji Maalik bi moo nekk noonu gars yi ñu ngi taxaw mais ñoom nee nan li nu bëgg mooy na fay leen seen xaalis na leen fay seen xaalis ndax danoo war a tëbasi ak seen njaboot ndax vingt ans ou trente ans mënuñoo jot dërëm ci seen xaalis ñu yoroo ci ñenn ñi si ñoom di leen fay kon ñoomi it leen fay seen xaalis seen nga noonu ba tey ñu ngi noonu doon boo Kodo Kodo dëggu peko Kodo Kodo eh Kodo eh Kodo eh Kodo xanaa xamoo yow hey Kodo eh Kodo eh Kodo eh bàyyi yooyu waay Kodo eh man maa xam yow Kodo man maa xam yow non Kodo Lii c'est un tapé, lii c'est un tapé. Kodo, calme-toi. Kodo, calme-toi. Kodo, calme-toi. Calme-toi. Ñu am beneen stratégie. waaw waaw lii c'est que le lancement. moom muy félicité wuñu muy jéem a am leneen. mais ñu ñu gën a nekk combattant. mais ñu ngi wax yow. yow li ma xam dama ko xam yow. dama la ne man. dama la ne man laa wax man. ngi jaaw moom du moom du moom man yow da nga gis malaaka kenn la yaa ngi jaaw du kii man li may def ragal bi ko tay wala ñun li ñu def da nga ni ni yëpp ay jaaru da nga gis ma door ni jaaru ji da nga gis ma lan nu yore suñu xaalis lan nu ko jox lan nu jox suñu xaalis bi waaw ñoom ñu ngi nii def bu nekkoon téeméeri antenne yu leen barke rasulullahi li yëpp ay bal danoo dem guerre ba yàqu ñu ngi nii li yëpp ay éclat la dama la xoolal faalewuñu kan waaw waaw dégg nga dégg dégg nga noonu mu doon loo xamante ni euh, doy na waar trop doy trop lool lool lool lool ci Ndakaaru muy doon loo xamante ni

mu doon loo xamante ne tamit euh, c'est déplorable mu doon loo xamante ne lu ñuy ñaawlu la kenn euh, ñu ciy wax loo nga ñi nga xam ne njiit yi nañ ci jóg ndax euh, lii mën naa jur leneen nañ ci jóg waxtaan ak ñoom jéem leen a fay seen xaalis ndax itam ñoom ni ñu ko waxee c'est des militaires invalides dañ doon xeexal seen réew ba leen dal dal leen fi nga am na ci waxtu wax ay waxtaan benn benn ñoo xamante ni ñu ngi déggoo seen biir waxtaan benn benn seen nga noonu gars yi xam nan la ñu def dañu am ñu ñu rocc si liste bi fay leen. fay leen seen xaalis ñu bàyyi loolu moo tax ñun dañ leen yàgg a woo na leen ñëw leen xam nga man maa leen di. mais nekkul ni ngeen ko kaasee. père nekkul ni ngeen ko kaasee. man maa leen di woo ne leen ñëw leen. non da ngeen wax rek da ngeen wax rek. lii amatul kaas amatul kaas. y a un colonel qui est derrière Maha Kaïdol.

dégg nga ko noonu nee na la wax ñi ngi seen non tak der ñoom ñi ñu ngi taxaw ñi ngi ni renfort ñi ngi taxaw non seen Non, non. Écoutez-moi bien. Non, non, posez-moi. On n'est pas là pour une confrontation. Calmez-vous.

waa jàpp ñu ngi seen noonu ñenn ci ñoom ñu ngi jéem a trouver benn terrain d'entente ñu ngi jéem waxtaan ki mooy le nouveau président des militaires invalides ñu ngi jéem a waxtaan seen biir. vous pouvez pas parler tout à dégg nga noonu euh, seen nañ lieutenant yi wàcc nañ commandant yi wàcc nañ adjudant yi tamit ñoom ñëpp ñu ngi ci kaw tali bi ngir waxtaan ak ñoom ñu ngi jéem a waxtaan ak ñoom ngir mën a trouver benn mu doon mbir mu doy waar mu doon mbir mu doy waar loo xam ne moo xew tey fii ci Ndakaaru Njaay seen nga noonu euh, seen nan kooku mooy seen day mel ni commissaire la

seen nañ kilifa gi mu ngi ñëw mu ngi naxtaan ak ñoom neen leen nan wàcc seen nga noon dégg nga mu ngi waxtaan neen leen wàcc leen tali bi ñu waxtaan nee na mu ngi waxtaan ak ñoom na leen nee leen nee ñëw leen ñu taxaw nii ñu waxtaan wàcc leen tali bi ñu waxtaan seen nga noonu nga noonu waxtaan nan ko ko on est ñu waxtaan nuyoo seen nga noonu ñu ngi waxtaan seen bir kok neena ko on est des frères Je combattu j'ai combattu pour le pays dégg nga ko Russell Boy. kaas dëgg la kaas dëgg la Russell Russell Boy. dégg nga dégg nga dégg nga kooku. Oh! ñooñu dégg nga wax ak Macky Sall. c'est le chef de président président chef ñun dañoo sonn lii moo du yoon si réew mi. des gendarmes génn si biir réew mi di taal dëkk bi moo di yoon man de xoolal sama appareil man yëpp ay appareil xool tànk yi. classé bàyyi leen ñu def dañuy soxla. taal leen ma tànk man taal man. non man day leen ma. non mënuñu leen ñu ngi demandé suñu droit la demandé

ba tey ñu ngi jéem a maîtriser tamit gars yi ngi waxtaan ak ñoom takk der yi ñu ngi waxtaan noonu. waaw mu ngi euh, seen gannaaw da ciy mel na am na ci kenn koo xam ne ci takk der moom day xëccoog ñoom moom la ay mbokkam di waxal noonu naan dugal duggal ci oto bi bul wax ak ñoom nga ne ko bu leen tontu dugal ci biir oto bi nga toog am na ku daanu na le ci les militaires invalides am na ku daanu na le am na ci ko daanu na am na ci ko daanu noonu seen nga noonu ñu mbokk yaa ngi koy yëkkati mu ngi noonu ay moroom a ngi koy yëkkati di ko yóbbu ci biir ci les militaires invalides seen nga kooku noonu yuuxu na ba daanu ñu ngi noonu ñu yóbbu ci biir mu doon loo xam ne c'est à euh, déplorer dégg nga nee na c'est kii euh, kenn ci militaire invalide wax na ko nee lii ñun gënaluñu waaye buñ ko defee rek danoo sës élection day am dégg nga dégg nga kookoo ngay ba kookoo ngay wëndeelu ca taliba moom tam doon na loo xamante ni tamit loolu naqar luy doon seen nga séen nga noonu yëf yaa ngi bëgg a ëppi loxo waaye ba tey uh, am na ci takk der ñenn ñoo xam ne ñu ngi calmé ñu am na ci yenn takk ba tey ñu ngi calmé ñu ngi naxtaan. leen nga li ñuy aalu aalu am na ci koo xam ne mu ngi calmé seen nga commandant bi moom mu ngi calmé seen nga noonu. sóone la. xam nga. waaw xam nga lépp loo gis. bu ngeen ko waxtaanee moo gën waxtaan ndànk moo gën ah. man xam nga man maa leen di. Oh, oh. ok c'est bon dégg seen ko kooku tamit ma ngay bajantu ko. dégg nga dégg nga kooku nee na ko yaa génne sama deretu glace sama classe yaa génne deretam yow dinaa génne sa deret seen nga noonu seen nga noonu euh, muy ñaar ci euh, les militaires invalides ñoo xam yëf yi dem na ba ëpp leen doole ñu ngi noonu ñu téye euh, ñu ngi noonu ñu tër ñu téye ci suuf ñi ñaan kilifa yi ñu jóg wax ci lii mu gaaw ndax mën naa ëppi loxo mu doon loo xamante ne mën naa ëppi loxo seen nga noonu ñoom ñaar ñu ngi tëdd noonu kon nanu jéem a xool euh, jéem a trouver terrain d'entente ñu waxtaan jéem a xool lii fay leen seen xaalis ndax itam wax nañ dëgg ay borom yi njaboot lan danoo bëgg a tabaskee seen xaalis kenn noonu ba tey ni ma ko waxee sànq rek am na ci ñenn ci takk der yoo xam dañuy ñëw waxtaan ak ñoom naxtaan ak ñoom euh, ba calmer le jeu